publicité sur Tiaroy Info TV. dal ak jam sen entreprise troisième menuiserie métallique Mansour da ngay a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu muccu ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde fou chambre à coucher mini salon wala sax nak ay plateau télévision ñu wa entreprise 3e lolé lepp dañ koy défar ak defarina gu muccu ayib wax na len ko ci ba muy teel yéenay tan seen bu len neex menuiserie métallique mansour ben la fi ñinga fété sa caaro yi tali jàllo ci soufu pont bi jàlloo keur sœur yi bo ñu bëggé jot wala nga bëgg am ay information suñu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën 404 83 94 Walassar 677 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. tey sama teewaay dara woon na ko bu ñuy jugee sama mag sama xarit grand Abdou Salam Mbaye moom la ñu am moom la ñu faral par rapport li nga xam ne moo nekk ñu naan ASC ji ak ASC ñetti mbaa tey loolu moo waral sama teewaay ba parce que dafa nekk grand boo xam ne grand bu baax la ñu gis ne à chaque fois tamit dafa nekk ci li nga xamante moom mooy soxlay askan bi te jàpp nañ loolu la jiite caara kay soxla parce que lii tamit sans moom la am na proximité population parce que chaque finance à chaque fois moom rek la ñu jàppale bépp activité bu moo xam ci culture moo xam ci éducation moo xam ci associative moo xam ci vie sportive la jël tout le temps moo nekk ci service communauté kon léegi ça nekk na grand boo xam ne grand bu mot a bàyyi xel te nañ ko soxla euh, dañu ñëw pour présider euh, benn finale euh, tournoi bu fi amoon la fii ci gox bi ci ay ASC Gouye Gui ma ñëw présider ko ñu ñëw àndandoo dans la paix dans la solidarité donc avec le fair play quoi looloo tax ñëw teew fii comme euh, chaque année je crois que comme nous, ñu ko suñu nattangoo as waxee sànq noonu la rek tout le temps nous dañu bëgg a varier sax mais nous avons des ci tournoi yi nga vraiment xaw ma lan la nag mais vraiment dañuy ñëw rek taamu ma ni ma yow la ñu bëgg daal vraiment nga présider ko ma xam ne loolu sas bu rëy la ndam la aussi tamit en même temps. naa yëg-yëg la rek parce que euh, ñun defe naa ba ñu fàttalikoo ba léegi ci ndaw ñi la ñu nekk te jóge wuñu aussi tamit doon ndaw ni ñoom. ndax ñoo bokk terrain di ko footballandoo ñoo bokk lamb di ko bëreendoo lépp lu ñuy def rek ñun ñoo koy defandoo ensemble parce que ci côté boobu laa bëgg ñu togg ko dama bëgg xam ni ci solidarité ci lañ mën a amee lépp ci jàmm. jàmm comme sama tur salaam ci lañ mën a amee lépp kon nag man ci loolu laay woote moo tax tournoi yëpp tournoi jàmm la tournoi fo la lu nit ki sori sori sori benn gox la ñu bokk te ñu ko partagé kon dañuy bokk ndey ak baay. loolu dafa rafet parce que sànq bi ñuy joxe coup d'envoi bi maa ngi leen koy wax maa ngi leen di wax ni leen donc ci kanamu donc vice coordinateur à soirée mi di leen wax ni euh, li ngeen am gox yu bari dañ leen a ñee. parce que nous sommes le wër ndax beaucoup de ñu banditisme agression Euh, vol lépp la ñuy wax waaye tey ji nee naa leen at yii nga xam ne moom la ñu weesu ba joon yàlla tey ñun model lañu exemple lañu parce que man ñu mel ni man bari nañ fi kenn ku ci nekk yaa ngi ci bay sa laajte di ci bay sa waar loo xam nga wax ñu encadré suñu njaboot parce que ñoo ñu tuddee bandi ñoo ñu tuddee agresseur ñooñu ñëpp suñuy rakk lañu suñu njaboot lañu te suñuy kër lañu nekk ñooy fanaandoo léegi nag amuñu benen pexe parce que mëno leen a kër yi té mëno dëkk également di leen génn ci kasso baak yobbu police légui nak ñu former donc ay groupe former ay comité yi nga xam dañ leen di waxtaan ak ñom conscientiser leen ba ñu xam ñom ci famille yi ñu bokku ci gox yi ñu bokku ak ci diiné ji ñu bokku bon d'après man nima gisé ni dal dama and ak sama frère As Gay mii nii bon mom mu faral benen équipe bi comme sama gan la nak man dama far ak mom comme ci 1-1 lañu bon nañ dem ba séri penalty rek bañu mako ah. waaw waaw jërëjëf merci beaucoup. Euh, macha allah comme ni nga ko waxee noonu euh, maanaam qualité gi askan wi am ci euh, final bu toll ni guy gi ak ak ñetti mbaar ñu tuddee ko le président Abdou Salam qualité googu organisateurs yi am ba tuddee ko ko man je pense bien du ñoom dong ñun ñëpp lañ ko defal parce que jàpp naane fi mu ne askan wi ji de caaree kaw li li ci ëpp qualité googu lañ jox Abdou Salam Mbaye ndax ne doxilinam yaram tegginam vraiment ak mbaaxam ak ak laabi ak laabiram. loolu moo tax ñu am kóolute googu pour tuddee ko euh, final bi tey xam nañ ne final bi dër bi la te ku ne Abdou Salam euh, da nga ciy fekk la moo salaam te final bi dañu bëgg ñu jouer ko dans le fair play lépp di jàmm moo tax tamit ñu choisir ko te defe naa ne noonu lay terminer incha allah. voilà euh, exactement comme ni nga ko waxee rek final bi dafa wuy borom ndax moom souvent fu ñuy ànd fu nekk li muy wax mooy man Abdou Salam laa tudd fu jàmm nekk maa nga fa fu jàmm nekkul nag nekkuma fa de ce fait moo tax macha allah comme ni ko waxee rek gox bi bu jëkk tudd nga ne guy gi wala nga ne ñetti mbaar wala nga ne banlieue bi euh, li ñëpp di xalaat mooy affaire banditisme ak des comme ça mais macha allah léegi euh, jeunesse bi màgg nañu yeewu nañu li gars yi jàngoon ba réer moom lañ jàng ba yeewu xam ne affaire bi gëm sa bopp la lépp mu ngi soti sotti ko ci dans la paix ah ñu xam ne Djiddah caaree Kaw ñoo ko bokk euh, bokk ndey bokk baay di régner pour le développement te ku ne développement am le mot jàmm danga ko ci gis bu jàmm amul rek dara du mën a am kon moo tax jàmm jooju ci la lépp xaj comme ni ko olof di waxee waaw final bi comme ni mu ko waxee rek euh, comme dañ na guy gi na ñetti mbaar Abdou Salam toog fi toogal fi guy gi toogal fi lépp c'est parce que c'est nous dans nous mais comme As tamit suñu gan la ah nañ ko tere rek comme ni ko président waxee bon ñu dem ba match bi dem série rek que le maire gagne allah merci beaucoup jërëjëf